mu melni nak mom sax nak dafa daw res mom la daal def mom mustafa jaxate ginnaaw ñu ko daa gis muy nekk ci plateau yi lu ne mu koy yak ki nga xamne modi premier ministre Ousmane Sonko kaddu yu ñaaw yu nekk waye nak bañu nemé ko mbiri ba jaxate yi ba léegi nak mom mustafa jaxate dafa mel dafa xawa seral mo ngi non mom ba jaxate sax nak si ay mbiram lañuy dess des dafa melni nak mom mbir ya ngay gëna metti sa mom sa kasso ba nga xamne fa la nekk ndax ay pelante yo xamne ma ngay takarna ci di jëm si mom Ah, du ñàkk dinañ si ñëw ak ay révélation yu am am solo waaye Moustapha jaxate moom dafa mel ni daal moom dafa dellu ginnaaw comme ni ñu ko waxee si la ni ñëw nag ak euh, vidéo bu ak révélation yu am am solo ànd si ak ki nga xam ne moo di Médine Diop patriote jaa ngeen jëf bu leen fàttee abonné alhamdulilah lii nii lañ ko sàkko woon ñaane ko nii di ñaan ñeneen ñi nga xam ne ñoom la saaga woon tooñ leen ndax makee fi nekkoon joxoon leen autorisation ñuy saaga nit du woon ba jaxate rek nag bari na même ci groupe yi ah, ñu daan saaga defe naa ku mel ne yërim sexe kenn déggatu ko fa nii xaw ma fu mu daw dugg yërim sexe Moustapha Jaxate ku xool xam ne doom yi xaw na wàññi ku ni daan waxee en tout cas ku xool xam débat yi ni mu daan defee xam ne defatu ko léegi ni daan débat defatu ko léegi réewande gi mu daan defe wàññi ku na bu baax a baax euh, li nga xam ne moo xew ci Ba Jaxate rek di wax ne. mangam ngi ne ku mel nday khadi ndjay dana duggal pelantam parce que waxoon na ni dem na ba tafa saf avis su doomam laaw doom bu ndaw ni kim tudd sohna sohna su jankay dana so do ñu ko tuddee yaay Alaaji Ibrahima Ñas yaay Baay Ñas la ko tuddee taf ko te dara waralu ko lu mak sala fi nekkon mo taxoon may len woon yéen ki leen dan protéger dem na nekkatu fi waye ko mom jappon na ne batay li fi nekkon na fi nekk na di ñaan dal ñepp ñi mu toñon avec Macky Sall nañ génné seen i li lii Ousseynou Maître def Ousseynou Fall lu am solo la nako ñepp ñëpp def defe naa Babacar Mboub bi jàll na Ousseynou Fall bi jall na defe bu ndey Khady Ndiaye ak ñeneen ak ñeneen ku ne di ñew di ñew rek nga xane fu mu waree jeex rek <laughs> ñu door ko beneen garda <laughs> bi beneen garda bi ni ma dal nii la ko bëgg bu soba yalla nga xane dina fukki at wala juroom ñent wala ñaar fukki at dana bax yar ko yaralay mbokam yar ay moromam it yar koy mu yar ay moromam yare moromam man dal lii mom kontaan na ci lol lol lol kontaan na ci defena naa ke doon jëlee ci bàjjaxate moom defena na dina ya ya way kan, mu génnee mom nee ñu ngi koy xaar ci walu diine ci muy Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw bu soobee yalla bu génnee moom danañu fekk dana am laaj yuñ ko laaj yo xane inshallah bu mu génne jàmm moom ragal na dañ ko bàyyi mom 3 mois yi mate waaye bàjjaxate moom nañ ko fa bàyyi rek bu benn di jeex rek nañ ko indiat benen mu fekk ko fa ñi ngi ci kontaan bu baaxa baax di wax ne kuy togn sak pay modi lu ñaaw ku def lu ñaaw sak pay moo di lu ñaaw wa jasaa'u sayyi'atin sayyi'atun mislaha ku def lu bon sak pay mooy lu bon te ba jaxal lu bon la defoon kon ak payam mooy lu bon ku di wax ne kontaan nañ baax a baax. li ma moom na de. léegi la bàyyil ba gars yi laajatu ko laaj yu mel noonu xam nga waxoon na fi naan xaw ma waa ji yow Issa na ko démb rek war nañoo fexe ba nu mu juree comme jigéen du juree ku mel ne Sonko yooyu wax yooyu waxatu ko de waxatu ko de. ko de beneen bi nag du xeet mbirum sëriñ wallaay lu mbirum sëriñ moom dafa xam ne tuuram a ñëw. état bi xam ne mbiram a gi ñëw lu leer laa la waxoon naa leen mustafaa Moustapha dafa bokk ci amoon ay troupe maanaam nerf yooyu ngeen gis Moustapha da ci amoon ay troupe bu ngeen gisee keroog ba am na bu si def naa ñu war a jàpp song mu naan ku ci génn ñu rey la te ku ñu rey du mujj fenn daal di wax ne firnde mooy ana ñar ana ñan reyoon dafa amee troupe moom Moustapha Diakhaté dama koy tudd ñëpp xam parce que ñu ko xamee. ak mbër da mom la dal andal xawma nan gajaga gajaga dina len ci kérok bi nga xamé né ñi ngi door waji tekkuna khalifa sallu tekkuna ndaw su bu ko dal ci ko muy ndaw so mu tu Gabriel kan kérok ci mission wal fajiri mustafa jaxat wu police wul gendarmerie mustafa jaxat la wu moko jiss and ak mbër moom yi trouble la yor ñi doon reyni ñi mustafa amna ci tour bi la lu leer la len mom xam na né enregistrement yi dafa am yoo xam ne papa Alé Niang am na yu jot a jàllam yoo xam ne dañ ko téye kenn génne ay nervi yoo xam ne carrément xam na ñi leen recruté woon xam ñi leen joxoon fetal yi xam ñi leen doon jox xaalis yëpp xam nañ ko loolu Moustapha xam na ne ci kawam lañ jëm mi ngi mel ne Bougane mii xam nañu ko xam nañu ko dañoo am lu ñu xam xam gi ñu xam ne seen kaw lañ jëm dañu bëgg a teel a anticiper buñ ne crime seen kaw rek ñu ne waxoon nañu ko lañ daan waxam waye carrément nee na lam daan waxee moo xeetuñu waaye jàppal ne jàppal ne xanaa ci suba nee naa Yërim Seck ana ko dikkati laa la la na sa xel daal ba ca kanam li ma wax sun kanam la nekk bis bu tur yi na nga ci dégg Pape Ndour dégg ci ku mel ne Boy Mbeñang dégg ci dégg ci déggal ci laaj juba gaaj dama ne da nga ci dégg turu Moustapha Diakhaté Moustapha troupe la yor ay troupe la yor yoo xam ne ñoom ñoo leen doon financé lu leer la loolu nag xam na ne day ñëwi ndax nee naa la am na ci ñoo xam ne wax ñu Pape Alé Niang am na ci yoo ne génn nañ ko am ñoo xam ne kenn génnewu léegi nag fokk mu anticiper nag di jéem a dëggal bopp ndax buñ ne kirib ci kawam rek bis ñu ko tuddee mën a politique waaye la ma xam te gëm ko mooy bis buñ koy tudd bu ko mën a weddi ndax firnde gaayam ci moom lu leer laa la wax nee naa ci suba ma Nasir ña daan renseigné Macky Sall enregistrement yi lépp lañ yoroon dama ne mi ngi ci loxol ci maay loolu laa wax ci de la république mboolem ñi fa daan dugg lañ fa daan def tey loolu mi ngi ci loxol mag eh, Sonko loolu lañ doon xeex pour ñu falu loolu taxoon ñu doon xeex pour ne Sonko li bëgg ñu falu rek ko man te gañe nañ loolu bu la wóoree ne Sonko ak ñoo yor nekk ca palem ne la wóor ne Moustapha Diakhaté keneen képp ku fi nekkoon defi lëfal te bisam dana ñëw te bu soobee yàlla bis bu ñëwee duñu wécc léegi kay nga xam ne moo ci naqar nit ñi mooy yeexaay bi <laughs> yeexaay waaw su ma ñëwee nag ci vidéo Donald Trump bi nga xam ne wax nañ ci barki wax nañ ci keroog dégg naa sax Moustapha di wax na ay tappale ma ne ko laa ilaa man xalaatuma ne tappale yaakaaruma ne tappale la yaakaaruma de nob bi mu wax nag lu tax mu dàq nob bi damaa gën ne loolu lañ ko digaloon damaa ki doon tiire loolu lañ ko digaloon da fetal yi yor léegi mënoo juum déedéet buñ ko waxoon ko dóoral ci bopp bi ci bopp bi lay dóor buñ ko waxoon dóor ko ci bopp bi buñ ko waxoon dammal na ko ndax fetal yi léegi mënatoo juum da ngay xool ba bëgg ba fi nga bëgg nga dóor gëm naa ne ñoo ko wax ne ko visuel nopp bi dóor ko wax naa keroog ci fetal gi ndax bu fekkee da nga fetal moom ci boppam moo yëgal nit dañ koo fetal ndax lan moo ko xamale méttit wi la yëg ci nopp bi mu làmb gis deret gi ci la dawee sëgg gaa yi daw sëgg waaye la nga cee dégg rek mooy nopp boobu ñu fetal ñoom ñoo leen ci jox ndigal maanaam kii tiire dañ ko jox ndigal ci lool ndax fete yi ñu yor lay buñ ko xono dóoral ci bop bi yir mu do ci bop bi fuñ ko waxon dóor fa mëna fa do dóor ndax day visé ba xol fi mu bëgg dóor li nga xam mom lañ taxaw moy koku nan la fa duggé ba fetal benen bel lu tax ñu gaaw rey ko lu tax ñu gaaw rey ko donte moom ah ni donte mom waxon na doon na ñaawul ci nekk ni trompe dama ne li tax ñu gaaw fir secret rey ko ndax mën nañ ko bañ a mën nañ ko dóor bal ci tànk ñu gaañ ko fexe ba jàpp ko laaj ko ba xam moo nekk ci am naa ci ay laaj am naa ci laaj di ñaaw lu baax a ko xam ndax buñ ko reyoon problème am te xam xam naa ne sax nee naa ne rey gi du a ndax ñoom woo na ne bëgguñu ko rey ndax buñ ko bëggoon rey rey ko te bi mooy ki nga door bal benn ci nopp mu sëgg mu sëgg daa nekk defe naa soqiyaatu ay bal ci kawam loolu am na lu mu donte dafa wàcc suuf dafa wàcc waaye lu mu ci mën a doon euh, li may ñaawloo di ko ñaawloo état bi fi nekk te di wax ne seen loxo gëw ne jóguñu ci fii indiwuñu ay firnde si dëgg ma gëm ne loxoy loxoy jobaay dana ngi ci loxoy jobaay dana ngi ci loolu nag lu garaaw a garaaw la moom nag li ma ci gisee ci wàllu politique ay côté côté moom dana gën a yokk moom loolu mu xam naa ko côté moom dana gën a yokk bu ko ragaloon ci politique sans sooy boo nga xam ne te yàgg na ci deux cent wala deux cent yu tegal ñu ngi leen di